mbir mi de ngeen baal ma am na kenn ku ma déglu démb suñu ah. benn confrère Babacar Kewulo mhm. euh, di ko nuyu bu baax euh, mi ngi ci doon wax di ci indi ay leeral mais bon moom version am rek la joxe aussi tamit gars yi moom ku ci nekk day wax li nga xalaat wax ne que ne euh, wax dafa dafa dafa dafa dafa garaaw par rapport ak xaalis bi nga déjà. sax 1,2 milliards yi. Hmm. terrain yi nga xam ne moom lañu jaayloo ki nga xam ne mooy Doro Gueye pour euh, jaaye ba pare mën a entretenir benn clientélisme politique à l'époque bu hmm. président Macky bon ci ay kaddu Babacar Touré leer Cheikh waaw <laughs> après il y a eu une un, montant de un million deux cent un mhm. milliard deux cent millions yoo xamante ne nii moom lañ ko jox mhm. mais euh, c'était pour yaakaar na mhm. peut-être lu président Macky Sall candidat dina euh, gagner élection présidentielle yi mais malheureusement après nee na que le président ci yeneen mbir la la nekkoon après euh, ci ñëw demee noonu muy muy déjà ay touma yu yu yu yu yu yu bu fekkee loolu moo am exactement xawma liñ euh, audition yeeg yu demee noonu xawma lu ci li li ci xew li ñu wax rek mooy que waa li waaw mi ngi noon démb démb ci de source claire mm-hmm. euh, am na ay journaux yu génn que yu génnee ne moom pare woon na pour joxe li xam ne ni mooy mm-hmm. euh, cinq cent millions mm-hmm. te fii fin juillet dina mottali kon sept cent millions milliards de cent la mais fi ñu fi ci li Babacar wax par rapport ak suuf yi ñu jaay euh, mais loolu dafay yeew coow naka la ñuy jëlee ay leen foofu ñu doon liggéey foofu noonu euh, Mermoz fi nii mooy fi ñu jëlee woon mécanicien yeeg yooyu noonu foofu la ñi fa doon liggéey et cetera même bu fekkee le motif de ñi fa doon liggéey motif de li ñu jëlee ñi fa doon liggéey c'était juste pour après jox ko ay nit pour que ñu mën ko séddoo mën a euh, am xaalis ak yu demee. et gisoon nañu coow yi nga xam ne moo amoon foofu biñ biñ jëlee woon mécanicien ak yu demee noonu même bu fekkee ne sax le cadre n'était pas propice pour ay mécanicien di fa nekk mais noon mais jël ay terrain yu mel jébbal ko nit moom mu mu mën cee mun kaa jaay mais aussi tamit raison bi nga xam ne mooy moo moo

ñun suñ dëkk bi nekkete euh, ñun dañ doon ñun dañ ñun dañ doon ñun dañu doon dañuy yeewu dañ doon yeewu xëy fajar teel ñu yeewu rek ay nit génn ñu ñun ñëpp sénégalais yi nee ñu fii yéen mooma taw leen ko ndaxte <laughs> kii nañ ko mais bon mais mais mais comme ni ñu ko waxee rek euh, situation yu mel nii moom heureusement ba fu mu nekk nii ñi ngi ñi ci ëpp dina leer parce que ay enquête mi ngi am te aussi tamit diligenté ko pour lu mu gën a gaaw pour que nit ñi mën a xam quoi et puis ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci situation yu mel nii nañuy bàyyi yu yi ñuy def bala sax euh, heureusement ba jub jubal jubanti mi ngi fi jubanti jubanti ñëpp instant yi nag ci jamonoy jubanti lañ nekk te dafa mel ni jubantee ngi def effet waaw instant yi nii jubanti mi ngi def effet mais nag bon man moom bugguma cee bugguma cee xuus